Nous avons ci commission culture communication mhm. nous, nag relation extérieure mhm. kon ñu la nga nous, ak Nous nous, Dia journaliste mhm. ah, euh, lu suñ xalaat rafet rafet lu ñu jàppale jàppale bu ko buñ ko buñ ko fësalul euh, firndeel ko ci euh, jumtukaay yi ngeen yor daanaka mën naa ne lu bari dina ci wàññi ko kon euh, may kontaan ci ci loolu di leen sant leen gërëm di la xamal ne li nga xamante bi comité d'organisation bi moo ko ëmb te mu am ci maanaam initiative bu commission culture et communication

ndax kenn ku ne xam na ne eh, ay fukki réew ak ñeent eh, bokk nañ ci am na réew yoo xamante bi sax am na ay ñetti nit ñu ci participé ñenn ñi ñaar réew yu néew la la ci eh, benn nekk. mel ne ne ne États-Unis euh, <laughs> ñaari délégation ñëw nañ donc fu mel ne Mauritanie moom euh, am na benn délégation boo xamante bi presque mën nañ téeméeri nit waaye yeneen délégation yu bari ak ay participants yoo xamante bi maanaam ñu bari lañ lu mat ñetti participants mauritaniens ñu ngi ci woon euh, ndax kenn ku ne xam na ne Cheikh Sidiya famille am maanaam ak njabootam lañ dara jaale woon bis bi. Eh, am nañ jóge Soudan ci ay ci ay turux yu mag maam ci ay ay ay yoon yu mag yu nekk foofa eh, ak ñu jóge Inde ak ñu jógee kii eh, donc Abu bi ak yëpp daal donc bref ak Dubaï même Mali am nañu fa jóge kon léegi ak Gambie. muy lu am solo loo xamante ne bi kon liggéey nañ ko ci jàmm kenn ku ne xam na ne la doon jokkoog ñoom ak ci ci leen taxaw bañ war a mën a ñëw ci lay firndeel yooyu yëpp ñun suñ commission ñoo ci taxaw nga xamante bi <laughs> dañu ko bàyyee complètement ñu liggéey ko lépp nag ñu ànd ko ak coordination boo xamante bi bu mag la lii nag muy lu am solo ndax kenn ko ne gis na ne euh, bi ma demee ci Cerno euh, Madani Taal euh, ndax loolu tam muy am solo wër nañ mbooleem euh, maanaam kër <laughs> diine yu mag yi Sénégal yëpp mhm. euh, personnellement man nañ chargé ma dem ma dem fa ak mbooleem xalifa Sëñ Tuubaa yi mhm. ak ak même xalifa sët yu mag yi ak ak ak <laughs> bari ci taalibe yi nga xamante bi cheikh yi maanaam njenne ak Baay Faal yëpp loolu lépp tam moom bañ fa demee ci Cerno Mari ni mu wax ne euh, mbir day yokk daana yéen nag yéen a ngi yokku ma ne ko loolu loo jublu mu ne ma daana ñu yëgal waaye bii yoon ni ñu yëgalee bokkatu nañu daan yëgalee ndax kon kon tam ñun dañ gën a sawar délégation ñëw na ma léegi bañ demee Louga def lépp léegi nag kon muy lu am solo loo xamante bi jamono ji bu tolloo foo xamante ne yëngu na bu tolloo foo xamante ne bii maanaam congi congi lislaam bari na ñu féewale jullit yi di leen jaxase muy lu am solo loo xamante bi ñu toog di gëstu di waxtaanee. nakat ñun njàngale mag ñi nan la ci jàmm mana a maanaam maanaam euh, <laughs> juddoo mm-hmm. bañ a nag ci li nga xamante bi ñoo Occident noonu lislaam yi démb bundu xatal ñu xatal ñu siiñ ñu fang fi ñu jaar ak Cheikh Ahmadou Bamba fi ñu jaar ak Cheikh Omar fi ñu jaar ak yëpp ñëpp xam ko kon tey buñ demee ba maanaam yar yar seeni mbër dégg nga maanaam euh, euh, sugg suggal leen mhm. maam teg leen fi leen neex ngir xeex njàngale mag ñi xeex tasawuf tey bu ñu demee ba amuñ lañ bëggoon ca ñooña kon ñun liñ nekk wanewuñ ko ngir ne dañoo xool fa ñu Occident jëriñ ñun su Occident weddee ngi ñu ànduloon démb ñu xeex dégg nga ñëw léegi nag nañu yéen la ñun loole dañuy def suñ warugar liggéey suñ liggéey waaye lu ni Occident jàmbo ñim àndaloon faral démb dégg nga du ñu xeex taxut ñuy jóg taxut ñuy wax ñun daal dañuy wane ne bu ñu yemoon ci jàngale mag ñi doyloo ko dégg nga te firndeel ko dégg nga tasaare ko lan la mën a indi ci jàmm ak defaru jëm andi woon démb donc kon tey doo ko ñëw kon tey buñ waru buñ waru ci li Occident Euh, joxañ ñu ne sedd na ndax dañoo seet ba seet ne kat juum nañ ndax bu njëkk ñu mel ne Cheikh Ahmadou Bamba bu ndoxataal dégg nga lu ne ñu def ñoom ndax ne ñoo leen mën a indi problème ñoo mën a dox diggante ak ak ak ak liñ bëgg am dëgg la loolu dëgg la waaye nag ci anam yañ ko fooge woon ci anam yañ defe woon ne ak violence maanaam ak maanaam euh, euh, ñàkk ñàkk tolore kenn ak itam maanaam toujours di ay musiba ci àddina loolu lañ defoon ne loolu la mag ñi bëgg indi ba ñëwee ba xam ne nag mag ñi indi loolu ñañ faral pour ànd xeex mag ñi ñooy ñi nga xamante bi ñoo ñooy ñoo ñoo mën a sabab loolu tey dellusiwaat nañ bëgg ñoo joxoñ me ñun loola maanaam du tax ñu def du tax ñu dindi ñun daal li ñuy def dinañ wane ne am nañ lu wér am nañ ay référence wér te am nañu itam maanaam fuñ sukkandiku ba li ci des nag mooy ñu tasaare ko li ci des mooy ñu waxtaane ko li ci des mooy ñu booloo dajaloo nekk benn bopp wax leen ne kat ñun nëbbutuwuñ laqatuwuñ li ñu am lu wér la bañ tàmbalee ba léegi nag am na ñoo xamante bi lu ne ñu ngi koy wax ci internet bi ak nangam nangam waaye ñun loola ñun faale wuñ ko ndax nit ki def naa ne bu amee liberté nekk ci la mu gëm di ko doxal war ngaa bàyyi ñeneen ñi itam ñu am seen liberté nekk ci lañ gëm di ko doxal bu ñu defee ne xëy na maanaam ñoo ëppi moyen bu ñu defee ne xëy na maanaam ñoo gën a fogoru bu ñu defee ne ñoo gën a préparé itam ñun dañu di won ne ñun amuñ seen soxla ay juri lañ leen jàppee maanaam njàngalem Sëñ Tuubaa li mu ñu wax mooy bu leen noonoo kenn koo xamante ne bii gémmiñam day gën a laa ilaaha illallaah loolu lañ bëgg a tasaare ci àddina bi ndaxte problème yi bari na julli la ñu fengale ñun nag ñu bëgg a wane ne fengale googee du defar dara waaye li mu yàq moo ëpp am na solo